yonent bi sallallahu alayhi wa nee na du dañ mukk mbooloo di am ci suma xeet mbooloo moo xam ne dinañ farak dëgg di ko dimbale ba balaa pencam yàlla di taxaw ko defee Isa doomi Maryam dana wàcc ci ñoom seen kilifa ga dina oo Isa ne ko kaay nga jiite ñu waaye Eesa ko déedéet fa yaqulu la ndax yéen euh, am ngeen ay kilifa inna baadakum ala baadin umara lenn ci yéen ñoo di seeni kilifa yonent bi teg ci ne loolu taraanga ju yàlla sédd xeet wii al imaamu buxaari soloon na benn di wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na naka ngeen di demee nag naka ngeen di nekkee waxtu woo xamee ne doomu Maryama wàcc na ci yéen su ko defee seen njiit du tere seen njiit ci yéen lay jógee dellu na wax ci hadis benn tey ne maa ngi gën ci yàlla ne Aysa doomu mariyam dana wàcc nekk di attekat bu jub bu maandu te dana moñote salib dana ko dammaate dana rey mbaam xuux dana dindi naamoo wala ñu ne galak dina séddale alali àddina mbañeel dina dëñ ci diggante jullit ni kañaan itam dina dëñ ci ñoom su ñu demee nag ba mu yàgg ci jamaano jooju nga xam ne jamaanoy ku gëm yàlla la jamaanoy mbaax la yonent bi wax na ci saxiihu muslim ne bu defee yàlla dina yónni ngelaw loo xam ne mu ngi jóge ci wàllu ndeyjoor ngelaw lu nooy nee na ngelaw loolu nag du fi bàyyi kenn koo xam ne kii sab xol gëm yàlla nga ca ñi gëm yàlla ñépp yàlla dina leen rey ñu jóge fii ci àddina ku am gëm yàlla ak lu mu néew néew yàlla dina la fi jëlee ko defee nag mu des fi gaa ñoo xam ne ñu gëmul yàlla rekk lañu gaa ñoo xam ne xamuñ lu baax mënuñ koo def gannaaw boo xamee ne diit bu diir bii nga xam ne diiru mbaax la diiru jàmm paase na ah, ci la soppeeku jamaano dëgg-dëgg soppeeku jamaano di am nag loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa taqumu saatu illa ala siraari nnaas nee na bés pencam yàlla du taxaw mukk ndere ci kaw nit ñi nga xam ne ñooy ñu gën a yées ñooy ñi ci gën a bon <coughs> su ñu demee nag te borom bi subhaanahu wa taala war fee jëlee nag àddina bi na mbir yaay demee alquran moo ñu ko indil xadis yonent bi sallallahu alayhi wa dëgëral na ko alquran wax na ne suñ demee nag ba yàlla bugg fee jële àddina dina digal malaayika mu ñu naan israfil su ko defee kooku dina wal ci lu ñuy tuddee bufta dana fa benn yoon ngir jeex ak lépp lu yàlla bindoon ko defee yëngatu bu mag bu kenn mosta dégg dana am lépp loo xam ne lu doon dund la keroog suuf dana yëngatu yëngatu gu mag ka noonu xeer yi ci nekk daj yu mag yi yépp dina mokk dur nekk di pënd fa tasiru habaan mumbathan asamaan itam dina fett dina tasaaroo kaanoon bi ñuy tuddee aljazibiya am ñu koy tuddee gravité ñu ne moo tax asamaan si jëmm yu mag yi ci nekk du ñuy tàmpanganteeg suuf si luwaa boobule dana tas dana yàqu su ko defee tàmpangante bu mag am bindeef yàlla yépp daldi yàqu jant bi leer gi ko yàlla joxoon mu nangu ko watan kadiru sams leeram daldi deñ lu nekk mbir mu nekk ci àddina bi kiyaan ba la yàlla joxoon mu di doole jenn bu ci biir lépp yàlla nangu ko borom bi subhaanahu wa àddina bi yëpp dellu soppeeku nag mel na mu meloon bala ko yàllaay bind wa ida alaalamu kulluhu sadimun wa buxaarun kama kaana qabla wujudihi wa xalqillahi taala lahu lii lépp nag ñuy wax ñu ko jëlee rek ci alquran donte ka nag alquran duñ ca mën a xam dara duñ ci sañ a wax dara donte kon nag addisa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam duñ ko mën a leerlu waaye alquran wax na ni yaa ayuha nnaasu ittaquu rabbakum inna zalzalata saati sheyun azim yowma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadaw kullu daati xamlin xamlaha wa tara nnaasa sukaara wa maa hum bi sukaara walakin adaab allahi shadid bés yu bés boobu léegi gis nit mu mel ni ku màndi sàngara fekk naanul dara kanaa mbugalam yàlla ak yëngatu tabiya bi rek mooy li ko gëlëmloo alquran dellu na wax ne alqaariatu ma alqaaria wa ma adraka ma alqaaria yowma yakunu nnaasu kalfarashi almabsuus wa takunu aljibaalu kalahni almanfuus bés la boo xam ne doomu aadama dina amuk jaaxle lool naka sax lu dul doomu aadama dina amuk jaaxle bindéef yi nga xam ne sax ñun li ñu foog moo dina amuñu ruuxu du ñuy tiit ñoom ñépp la ñoom ñépp la kàddu yàlla di tiital ñoom ñépp la doole yàlla di tiital ba tax na xeer yi sax dinañ ko yëg ba nooy nem ma ko dur alquran dellu na wax na yow ma takunu samaau kal muhli wa takunu aljibaalu kal ahd wala yasalu hamimun hamima yubasarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bi banihi wa sahibatihi wa axihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fi l ardi jamian tumma yunjihi kalla innaha lada bés boobule da nga gis aji bokkaale yàlla aji def bàkkaar doon na ngeeju sax jot boppam ci mbugalam yàlla joxe ay doomam joxe soxnaam joxe mbokkam joxe géñoom joxe léppam joxe lépp sax lu nekk ci kaw suuf ngir yàlla musal ko ci mbugal mu métti moomu de su fekkee nag loolu am na yëngatu bu métti boobu am na ba noppi ba ñu toog ñeen fukki at yoo xam ne yónnent bee ko wax ci hadis ñeent fukki at yooyu le xamuñ naka la demee ndax ñeent fukki at la comme suñu ñeent fukki at yi nga xam ne dafa am minute am seconde am minute am waxtu am bés am guddi bëccëg am am lu ñu naan semaine maanaam bés bu ay am weer am noor ak nawet suñ at yooyu ndax at yooyu la yonent bi doon wax walla yeneen at la yoo xam ne jant bi amu ca lu muy doxal walla weer wala waxtu yii ñu xam ñun loolu moom yàlla xam moo ko yonentam waaye daal yonent bi nee na sallallahu alayhi wa gannaaw yëngatu bu mag boobule ñeen fukki at borom bi dina ebal ndox mu wàcc ci kaw suuf moo xam ne la xam man ni doon liggéey ci biirub jigéen ndox moomu la dina ko liggéey ci biir suuf dina dellu dekkal yaram yi yépp yàlla dellu ko bind ba kenn ku ci nekk melokande wala yàlla bindoon bi ku la gis xàmmee la danga ca delloowaat dara du manqué su bind googule paree nag ñu mel ni ay reenu ñam bi ci biir suuf ni ni liir yi meloon ci seen biir yaay yàlla dina dellu ebal ruuxu yi nga xam ne moo leen dencoon te fa ko soob ñu dellu siyaat ci yaram yi yonent bay wax ba tey sallallahu alayhi wa sallam ndax ruuxu yi benn bu ci nekk su génnee ci yaramam rek am na fu ko yàlla denc ñaari dencukaay nag la yonent bi wax ne moom la yàlla am ci ruuxu doomu aadama am na ruuxu yoo xam ne yàlla ngi leen denc ci kaw asamaani juróom-ñaar ca elliyin ñooñu mooy ruuxu yi nga xam ne dañuy nekk ci bànneex ba ñuy dugg aljanna yal ñu yàlla boole ci ruuxu yooyu le am na yenn ruuxu yoo xam ne yàlla daf leen di tëj ci fu ñu naan si jiin ci suufi juróom-ñaar ci palaas boo xam ne bii duñ fa am benn taraanga ba bés pincam yàlla su ko defee ruuxu yooyu la yépp la yàllaay digal nag ñëw dellu fekk si jëmm yi yàlla digal suuf si mu xotteeku doomu aadama yi yëpp dellu jogaan nag nekkaat ñu doomu aadama yu ànd ak yaram ak ruuxu ak ak yëg ak xel ak xalaat bànneex ak naqar su ko defee nag bés pencum yàlla ci foofu lay dooree mbokk yi dafa mel ni waxtu wi jeex na benn tey ñu ngi continuer bokk yi ci lu aju ci taxawaayu bés penc nga xam ne mu ngi bokk ci ponki liimaan yi nga xam ne jullit bu nekk war na ko gëm ñu ngi tolloon ci fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon waxee ne pencam yàlla du taxaw mukk ndere nga xam ne rek dana am ñaari kuréel yu mag yoo xam ne dana danañu jaamaarloo rayante rayante gu metti ñu waxoon ne salafu saali di mag ñu baax ña ñoom firi woon nañu ko ne mbooloo mi àndoon ak aliyu la ak mbooloo ma àndoon ak muawiyatu na abi sufyan ñu daje woon ci palaas bu ñu naan si fiin xeex ba metti woon lool su fekkee mbooloo moomale la kon paase na yonent bi dellu na ci teg sallallahu alayhi wa sallam ne bés pencam yàlla du taxaw mukk ndere rek lu ñu naan xarju dana bari dafa ne laa taqumu saa xatta yaksura al xarju ñu ne ko lanay xarju ya rasulallah mu ne moo di rey moo di rey te moo di rey balaa bis pencam yàllay taxaw doomu aadama dina fonk rey moroomam lool nit ñi dinañu gëm reyante boroom xam-xam yi ne màndarga le feeñ na ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon ndax su fekkee danga seet xeex yu njëkk yi nga bëgg ko nattalee xeex yu mujj yi da nga xam da gis ne xeex yu mujj yi li ciy dee ci doomu aadama moo ëpp lool la doon dee ca xeex yu njëkk ya ndax jamano ñi ñu toll léeg-léeg nga dégg xeex boo xam ne ay téeméeri nit ñu cay dee am xeex yoo xam ne ay junney nit ñoo cay dee am na ci xeex yoo xam ne ay fukki junney nit ñoo ciy dee am na ci xeex yoo xam ne sax jamaano yóbbu woon na ko ba ay millions yi doomu aadama di ci dee kon kon kon ni ko yonent bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam jamaano indi na ko noona ci fekkee da ngay seet xeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jihaar yi mu def ci jamono ji mu nekkee madinatul munawara nga xam ne xeex la yoo xam ne jege na ak fanweeri xeex ñetti fukki xeex jege na ko waaye terewul bindkati taarix yi dañu ne lam tatajawas alfayni wa xamsa mia qatil xeex yooyu la ña ca dee rombul ñaari junne nit ak juróomi téeméeri nit su fekkee yaa ngi nattale xeex yooyu la nag xeexi jamaano da gis ne sore na lool kon li yonent bi waxoon ne balaa bés pencam yàllaay taxaw rey nit dana bari loolu feeñ na feeñ na ci xeex yi waaye feeñ na itam ci diggante doomu aadama yi jamaano yi ñu toll ni ñu fonkee yóbbu euh, jël bakkanu doomu aadama ci lu dul dara koo xam ne deful la dara nga jël bakkanam loolu siiw na lool ci jamono yi ñu toll kon sallallahu alayhi wa nam ko waxee woon rek jamono dëggale na ko noonale ben tey jëlee nañ ci abi hurayra radiallahu taala anhu mu nettali na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na <coughs> bés pencam yàlla du taxaw ndere ndox mu ñu naan alfuraat dana génne xeer woo xam ne wii xeer wurus lay doon ndox ma dana oyu su ko defee xeer dana fa feeñ boo xam ne wurus lay doon nee na doomu aadama yi danañ reyante ngir xeexu xeer wowule doomu adama yi danañu fa reyante loolu di màndarga moo xam ne gisaguñu ko xadis boobule jëlee nañ ko ci saxiixayni naka noonu jëlee nañ ci saxiixay ni mu di solo di wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bés pencam yàlla du taxaw mukk ne nga gis jullit ñi danañ tàmpanganteeg yahud yi danañu xeex xeex bu metti waaye ci xeex boobule nag nga xam ne dafay nekk dalilab taxawaayu bés penc jullit yi ñooy gañe yahud yi mu ne jullit yi dinañ topp yahud yi di leen rey ba yahud yi di daw di làqu ci ay xeer ak i garab mu ne ci jamono jooju nag yàlla dina waxloo xeer yi ak garab yi ñu di oo jullit yi naan leen yaa muslimu yaa abdallahi haada yahudiyun xalfi fa taala faqtulhu ee yow jullit bi ee yow jaamu yàlla bi benn yahuda ngi nii ci sama gannaaw ñëwal rey ko yonent bi ne ndere garab gu ñu naan xarqat fa innahu min shajaril yahud moom garab ak yahud la loolu bokk na ci xadis yi yonent bi wax ne balaa péncam yàllaay taxaw loolu yàlla dina ko dogal dellu na wax sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen gaaw jëm ci jëf yu baax yi baadiru bil amal gaaw leen gëm seen borom te jaamu ko am na fitna yuy ñëw si ci jamono fitna yoo xam ne dafay ñuul kukk ba ni lëndëmu guddi fitna yooyu la dina fitnaal bépp jullit dina tax sax nga gis benn waay xëy ci suba teel balaa dell si ngoon nekk di yéefar génn ci diinaam fitna yooyu la dina tax jullit bi gont balaa tëdd si nekk di yéefar su ko defee nga gis jullit yi door di jaay seen diine bi aradin min ad-dunya ngir marsandisu àddina rek xam ne dinañ dem ba nit ki àddina gënal ko diinam loolu mandarga la moo xam ne itam su fekkee ne agsiwul kon jege na ndax léeg-léeg ñun jullit yi nga gis ci ku def jëf joo xam ne ji dana la waar dana la yéem naka la ko jullit nangoo ci diineem ku gëm na yàlla am na màndarga moomu la yonent bi waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni door na di feeñ dellu na waxit ne balaa bés fencam yàllaay taxaw jamaano dina soppeeku ba jigéen ñi gën a bari góor ñi lool dinañ ma mos a dem nee na dinañ mos a dem bi àgg ci soo kontee genn góor di nga mën a compter ñeent fukki jigéen yu tollook moom loolu yonent bi waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni màndarga moomulee door na di feeñ ndànk-ndànk ndax daal li gën a bari nag moo di ne léegi dëkk boo dem jigéen ñi ñoo gën a bari góor ñi mu teg ci nag ne jamono yooyu am na mooy yàlla goo xam ne gii jullit bañoon na ko waaye dana mujj siw te moo di njaaloo dinañ dem ba dootu nekk di lu aay su ko defee mooy yàlla googule dina siw am leneen lu tolloog moom lu siw ànd ak moom lu ñuy tuddee góor jigéen góor gu soppi jëmmam def ko muy góor def ko muy jigéen mu di jëflante góor ñi nee na danañu dem ba njaaloo siw ba sax doomu aadama yi di ko di jànkuwanteeg moom ci kaw yoon yi yoon wi nit ñuy jaar danañ dem ba góor jigéen di ànd ci kaw yoon mu ne su ko defee nag nit ñi di leen romb waaye ñi leen di rombit du leen naqari de duñ ci am dara lu leen naqari xanaa kay li ñu bañ a jàddal nit ñi ci yoon wi rek di leen di loolu rek moo leen cay naqari loolu nag doy na waar xam naa benn teyit mën nañoo wax ne ñu ngi koy séenu ndax mbir yi fi mu toll fi mu ne nii am na mag ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci seeni bàmmeel ku leen eewoon ne jullit dana mos a toll foofu ci mbir yi duñ ko gëm mukk kon ni ko yonent bi waxee woon du jaas de moo ko waxoon te dina am ndax duy wax ci bànneexu bakkanam mukk lu mu wax rek waxu yàlla la subhanahu wa mbokk yi dafa mel ni nag waxtu waa ngi jeex kon ñu toll fii bi beneen jëmmi jamaano di ñaan yal na fi yàlla wàcce sutura yal na ñu yàlla jéggal suñuy bakkaar yal na fi yàlla wàcce jàmm ak naataango wasalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñuy déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dentey ñu ngi continuer ci suñu waxtaan wi di ponk liimaan ñu tolloon ci ponk juróomeel waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solo na ci hadis yu bari di wane ne bés pencam yàlla balaay taxaw lu ñaaw dina yaatu te dina bari am na fa yeneen i mbir yoo xam ne yi tegtale dikku bés penc la waaye ñoom yu rëy lañ yu bari lañu